tey jii la fii ci France justice bu France di ubbi dëgg dossier Macky bi nga xam ne Juan Branco moo ko porté woon plainte pour crime contre l'humanité ci ndax nit ñi mu reyoon Sénégal torture yi amoon foofu xale yu bëri nga xam ne tey ñenn ñi sax ba léegi gisuñu leen bokk ma ci gendarme yi ñu reyoon gendarme yi nga xam ne defuñu woon lu dul seen liggéey Macky Sall soupçonné juste ne dañuy jox information Ousmane Sonko tax mu rey leen ba kenn kii ba tey gisuñu ko ba doo amul amul sépulture saa famille ne peut même pas faire son léegi nag tey jii la justice française bi du ubbi dossier bi xool ndax Macky Sall dañ ko war a toppe ndax kilim contre l'humanité war a dañ koy bàyyi léegi nag eh, dossier bi dina commencer instruction bu fekkee jar na ñu def xootal convoqué Macky Sall dina ñëw wala bu ñëw tamit ñu def ko mandat d'arrêt international Interpol dugal ci loxoom booy loolu bu amee Macky Sall dootul mën a génn Maroc ga mu nekk ndax fu mu nekk ci àdduna police bu ko njëkk a gis da koy teg loxo delloo si ko réewu Sénégal donc léegi compte à bi commencé na fii ci France ñu xam ne Macky tey lañ commencé di instruire dossier bi di xool ndax li Juan Branco bind ci dossier bi yëpp am na ak preuve yi mu indi yëpp waaye li leer mooy ku gis ni affaire yi demee woon ci élection yi passé nit ñi ñu doon tiire ñuy dee vidéo réel yi torture yi ak témoignage yu yi gisuma man Macky Sall fan la mën a jaar bu setal boppam ci biir dossier léegi daal moom na xam ne tey Macky Sall moo doon daq nit ñi di leen rey di leen dóor di couper internet moom tey bu woywul moom la ñuy xel di wër ci àdduna di ko pour teg ko loxo ndax jébbal ko yoon mu fay ci li mu def ndax dafa rey ay doomi jàmbur dafa toroxal doomu jàmbur dafa réeral ay doomi jàmbur loolu moom mooy fi dossier bi tollu tey naka ñëpp xam ne France mbir yi commencé na pour Macky doote leen gis ay voyage am yu bëri to dossier bi moo tax ndax instruction bi commencé